ah Serigne Fall Fall a noonu Serigne fal Fall wàcc ñëw na gis ngeen gis ngeen oto bi nga xam si ni mbokk yi seetaan Leral TV Leral point net gis ngeen oto bi nga xam si ni moo def ay bagage gis nga keesu picc bi wàcc na keesu picc bi wàcc na kooku rës le problème mu ngi dem magu sita dumbuyaa lee nekk fee dafa mel ne ay layu la de gis ngeen kees yooyu Abdou Seck a ngi noonu Ah, ngeen kee glace la yor. kii sëñ Fallou Fall la. Mbacke maa ngi lay ziar. Mbacke eh, bisu bisu tey jii si Talla Daguerre. waaw waajtaay yi. waaw ah, di di rek. ak mbokk réew mi mbokk bitim réew di di leen wax ne suñu waa ji mooñ fi indi di mbokkum taalibe di kenn si ñun ku sori si ñun. Euh, Siteu moom ku ko tudd tudd adduna moo tax bu jugee nag adduna jug rawatina man hmm. parce que damay wax rek fi mu ma teg foofee laa laa ko delloo hmm. lu dul làmb sax Siteu jaral na ma hmm. waaw te ñaan yàlla suñu borom defal ñu ndam incha allah am nañ jotu rafet na yàlla dee ñu ko defal bu neexee yàlla kooku surtout maam Cheikh Ibrahima Fall la direct i mooy Serigne Fallou Fall mu ngi jëm ci waaw mu ngi jëm fi nga xam ne fi la Siteu di ngemboo